aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wërëm waaye ñaanal mbooleem ëtti lislaam yépp ñu ngi amaan mbégte di ñëwaat ak yéen ci seen ñetteelu numéro ci jataay bi ñu tuddee hawlal mazahibil arbaa muy jataay boo xam ne yéen a ngi koy ànd ak seen mbokkum taalibe Fallou Gala Sill ñu feggoo ci wàllu caméra bi alaaji Fallou Sill waaye ñu koy seq nag ak suñu mbokk Cheikh Abdoul Ahad Sané bokk yaakaar naa numéro bi weesu laaral na leen mazahib yi nga xam ne ñoo jot am tamit muy ñaar fukk yu tegal yi ci raaf ak yi yi dund ba nëga nii ak yi nga xam ne seeni wax des na ci eh, téere yu mag yi te di ko nettali tey jii nag Cheikh Abdou Lahad boo nuyoo ak bokk yi ba noppi dañoo bëggoon rek nga ñëwal ñu ci mazahib bi ni ñu baree waaye wuute yi nga xam ne am na ko te yépp tënkuwaat nag ci eh, alquran ak sunna lan moo jur seenu wuute ci ay déggin alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaïn mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi am mbégte dellusiwaat ci sunu émission wu xawla al madahib al arbaa mu doon émission boo xam ni dañu cay jàngat. ya nga xam ni dafa aju ci madaahib yi nga xam ni ñooy madaahibu ahli sunna wal jamaa yaa xam madaahib yi raaf la wala madaahib yi fi des la eh, tomb bi weesu walla jataay bi weesu eh, taxawoon nañu tuuti ak li nga xam ni dafay aju ci limub al madaahib eh, al muntamiya ila ahli sunna wal jamaa lim te xawoon nañu ci tuuti mooy madaahib yi askanoo ci ahli sunna wal jamaa eh, tey jii incha allah comme ni ko sëriñ Fallou Galassi la waxe eh, ci laajam wi mooy madaahib yi ak li ñuy limu yépp te amul sikki sàkk yit ni seen delluwaay eh, alquran la ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaay ya doon delluwaay yi waaye wuutee bari ci seen diggante wuute yooyu kon lan moo ko waral loola il ñu dellu tuuti ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa ak ak alquran gi nga xam ni moom la yàlla wàcce ci yonent bi eh, comme ni ko ñëpp xamee yàlla dafa wàcce alquran ci yonent bi alquran doon téere boo xam ni eh, dafa bëgg résoudre lijjanti lépp lu soxal doomu aadama ci kaw suuf yaa xam digganteem la ak boromam yaa xam digganteem la ak yamu bokkal àddina bi eh, yaa xam sax digganteem la ak boppam alxuraan dafa ñëw ngir yooya yépp mu xàllal ko ci yoon yoo xam ni ak texeem ci la aju fii ci àdduna waaye it texeem ci la aju fee ci àllaaxira moo tax sunu borom di wax ni di melal alxuraan ne alxuraan jii kat tibyaanan li kulli shay mm-hmm. lépp rek la leeral bàyyiwul dara Eh, yonent bi nag comme alquran dëgg la lépp la leeral waaye sunu borom subhanahu wa taala ba muy wàccee alquran dafa am nu mu bindee al nu mu melale alquran ni mu melale alquran mooy nii eh, lu bare bari ci li alquran di àddu lu bari ca loo ca yooya dafay doon lu ñu tënk alquran day tënk alquran bariwul li muy teqale bariwul li muy tafsil bariwut li muy tafsil eh, buñ ci doon joxe misaal ci lu mel ni julli yàlla digle na ko ci alxuraan soññee ca ñaaxe ca dem sax ba bay tëkku ña nga xam ni dañuy woyofal julli fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabaau shahawaati fa sawfa yalqawna gayya eh, tëkku leen demit tëkku ñi nga xam ni julli gi duñ ko defee ca anam nga ko sunu borom santaane fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun kon julli alxuraan da jox solo waaye nan la ñuy jullee alxuraan jàngalewu ko nan lañuy ñuy jullee alxuraan jàngalewu ko jàngalewul sarti julli eh, lu dut benn sart wala ñaari sart yee ca des jàngalewu ko alxuraan jàngalewul ràkk ay julli jàngalewul waxtuy julli bi tafsil kon julli ak la muy foor foor yépp rek eh, alxuraan da tënk mm-hmm. léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa moom la yàlla jox ndigal ci tënk yooyu nekk ci alxuraan mu teqale ko firi ko leeral ko ndax ñaar ñoo ko war moom yonent bi mooy jottali alxuraan ni ki ñu ko wàccee ci moom waaye leeral alxuraan ba nit ñi dégg ko mën koo jëfe lu ca ne ci ñaar yooyu yàlla am na ndigal xaas goo xam ni jox na ko ca yonent bi benn bi di yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik yow yonent bi li ma la li ma wàccee ci yow mu tukkee ci sa boroom jottali ko na ca nit ñi jot comme ni ma ko wàccee ci yow dinaa la ko dajaleel laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bi inna alaynaa jam'ahu wa qur'aana fa ida qara'naahu fattabi' qur'aana eh, bu ci sonal sa bopp maa ko wàccee maa koy wattu waaye danaa ko dajale ci sa dënn ba alquran dara bañ caa soppiku kon jottali gi rek moo la war taxawe ko waaye weneen ndigal wi mooy fi mu ko naan wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim mu ne ko yow yonent bi wàcce naa ci yaw alquran waaye nag la ma ci bëgg ci yow mooy nga firi ko leeralal ko nit ñi ndax ay tënk la tënk yooyu yow rek yaa ko mën a firi ndax yow laa yow laa xamal nañu koy firee pirin mm-hmm. googa nag moom mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna yonent bi ci ay waxam waaye it sunna yonent bi ci ay jëfam sunna yonent bi sax nag ci yu mu fekke ba pare bàyyi ca ñamu ñamu fekk ñu koy def wala lu mu fekkee na mu àddoo ca loola yaa xam lu positif la wala lu negatif la loola ci boppamit day duggaale ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa kon wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma la ilayhim loola la yonent bi jooxe jàngale ko ci sunnaam njàngaleem yonent bi nag laa budda it ñu xam ne alquran dafa am ay aw juh yu bari ay anam yu bari laaya daan na wàcc dooni ndigal ñu toog jëmmi jamono jeneen laaya wàcc folli ndigal loola folli googa nag am nañu ko daa dégge ni folli la waaye am nañu ko daa dégge ni dafa am luñ ca seppi rek waaye folli wu ñu yëpp loola daan na waral xilaaf ay wuute ci diggante saxaaba yi waaye it daan na waral ay xilaaf ci ña nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw saxaaba yi e, alquran comme ay tënk la yenn saa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama e, ca na mu daan jàngalee njàngalin ma daan na bari ay nañu ko daa déggee ñii di ko dégge nii ñee di ko dégge ci seen façon ndax nit ñi tolloowuñu dégg mm-hmm. ñii dañ leen nettali ñii dañoo fekke ñi fekkee toujours ñoo daa gën a dégg xam circonstance ak contexte ba nga xam ni moo taxoon euh, ndigal lii wala tere lii wàcc waaye ñi fekkewul brut ba rek la ñuy am mooy jëmmi baat ya mën nañ ko amal seen dégginu bopp wuuteeg la nga xam ni mooy contexte ba taxoon mu wàcc loola it daan na waral ay wuute kon saxaaba yi ñoo njëkk a wuute ci yu baree baree bari yoo xam ni dafa rotoon ci alquran seeni dégg-dégg wuute ca ndax ñii dañoo fekke ñii fekkewuñu ñii ay arab pur lañu woon ñii doonuñu woon ay arab ku ci nekk nettalee ko ci sa façon waaye ku ci nekk na nga daan nettalee da daan doon noo xam ni baat ya ca boppam attan na ko ndax da nga gis benn baat boo xam ne attan na ñaari maanaa mm-hmm. na baat yoo xam ne attanut lu dul benn maanaa mu ne su caa dégg lu dul wenn maanaa yooyu nag daana wute wuñu ca mm-hmm. waaye ya nga xam ne daf dañ cee mën a dégg ñaari maanaa yooya saxaaba yi ñoo ca njëkk a wuute seeni taalibe di taabi'un yi ñëw wuute ca yooya ndax ku ci nekk la nga jël ca sa sëriñ loola ngay topp comme aimma surtout al aimatul arbaa wala asrul aimma jamono yi aimma ya eh, dafa tolloog jamono yi taabi'u taabi'in mooy ndongay saxaaba yeeg seeni doom ñoo jàngal aimma yii ñu gën a dooni mag ci aimma yi ku mel ni imaam Abu Hanifa mi nga xam ni 80 la judd ci eh, gàddaay yonent bi donte gisul benn saxaabi ci la gën a wér eh, ku mel ni imaam Malik mi nga xam ni 93 la juddu eh, ci gàddaay yonent bi moom it gisul benn saxaaba eh, ñoom ñaar ñooñu seeni sëriñ ndongay saxaaba yi lañu. Mm-hmm. ñaar ña ca des nag génération ñoom Malik yii ñooy seeni ñooy ñooy sëriñi imaam Shafii mm-hmm. génération imaam Shafii ñoom ñoo nekkoon sëriñi imaam Ahmad ibnu Hanbal mm-hmm. noonu la tëdde ci ñeenti ay may. kon ku ci nekk saxaaba yi bu ca nekk na nga dégge woon njàngalem yonent bi te mu doonoon déggin yoo xam ni it lu ca bari yonent bi da leen ca daan saxal da daan nangu buñ ci joxee misaal yonent bi mas na euh, doon dem ci banu Qurayza ci ginnaaw xaswatul xandak xare boobu ñu naan xandak ba mu fa jógee bëgg continuer dem ca benn dëkk euh, boo xam ni xay bar la waa banu Qurayza ñoo fa nekkoon Eh, dafa wax ni bu na ngeen fexe ba kenn bu mu jullee julli tàkkusaan lu dut ca xaybar nañ fa ñëpp jullee jee xam nga loolu ndigal la te ndigal yonent bi jëfe la sant waaye teewul ba ñu demee ba ca yoon wa am na ba tàkkusaan jotee am na ñoo xam ne dañoo wàcc julli am ñoo xam ne ñu ne leen du yonent bee ne woon bu kenn jullee fu dut ca bani xurayza ñooñu la ñu déggee woon dañu déggee woon mooy ni ah gaaw gi rek la bëgg ak soññee la ak yàkkamti waaye jëmmi zaahiru wax ja doonut woon jubluwaayam moom yonent bi am ñoo xam ne it dañoo jël zaahiru wax ja continuer dem ca banu xurayfa yegg fa tàkkusaani suuf doog a julli tàkkusaan yonent bi yëg ñoom ñëpp seen i jëf ku ci nekk mu rafet lu nanga defee kon loola wuute la wu ñu wuute te mu joxe ndigal mm-hmm. eh, ñu wuute ca ndigal la ca nañu ko jëfee waaye mu nangul leen ñoom ñëpp seen déggin sahaaba yi nag ñoom dañu tasaaroo woon mm-hmm. ku ci nekk am lu mu jàngee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ku ci nekk am na mu déggee njàngalem yonent bi ku ci nekk am na mu déggee it alquran tasaaroo ci gox yi ñii nekkoon Madina ñoom ñoo ca ëpp eh, ñii nekk Makka ñii nekk Sham ñii nekk Basra ñii nekk Kuufa ñii nekk Misra tasaaroo fu ne ci àddina bi mm-hmm. ku ci nekk nag fa nga nekkoon boo daa jàngaleel ci nanga dégge alquran ak sunna yonent bi noonu nga ko daa jàngale mhm. say taalibe ya fa ne jële ci yow njàngale mooma eh, imam malik nag comme madina la nekkoon njàngaleem la ëppoon ci saxaaba yi te nekkoon madina eh, dale ko ci omar ibnul xataab ak eh, saxaaba ya féete woon madina seenum njàngale ci la mazhabam lépp rek tegu kon wuute ba noona la sosoo ca noona la tàmbalee waaye it am na it eh, yenn saay wuute ya lii dana ko waral mooy gannaaw ba ñu dëppoo ni alquran ak sunna ñooy source principale yi nga xam ni ci lañu ñu war a jële ay attey sharia ca la ñu war a sukkandiku ci lu ñuy tënk ak lu ñuy tëral ci seenub fiq gannaaw bañ ci dëppoowee waaye te ñu xam ni fiq bii ñuy jàng xam ni ci la madahib yi tegu ndeyam ak baayam mooy alquran ak sunna mm-hmm. mën nañu ne alxuraan ay ndeyam alxuraana ay baayam sunna yonent bi di di ndeyam ci ñaar ñooña ca la fiq bi balloo ca la juddoo loolu tax na e, bu ñu wuutee déggin ci yenn aaya yi bu ñu ci joxe benn misaal rek ndax jataay yi dafay gàtt mooy e, wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru e, alxuraan dafa wax ni jigéen ju jëkkëram wàcc ju borom këram wàcc dana jël edda ñetti mbërëg mhm. wala ñetti set mhm. ndax lan aima yii ñenn ñi ne xuroo mbërëg lay tekki ay mbërëg mhm. ñii ne déedéet xuroo ay set lay tekki kon ñetti mbërëg mooy edda wala ñetti set mooy edda loola aima yi dañu caa wuute la waral wuute ba mooy ni baatu xar u ci luxa arabiya danay tekki set waaye danay tekki it mbërëg ku ci nekk na nga ko déggee nga jàppe ko noona ne at aaya alxuraan ja ca looloo ko tax a jóg macha allah eh, loola benn la ñaareel bi wuute ci xadiis xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, bu ñu waxee xadiis du ni dafa doon ay jataay yoo xam ne yonent bi da daan woote ñu ñëw mu xadis leen muy jàngale déedéet yonent bi lu mu mas a wax ci kaw suuf xadis la lu a def ci kaw suuf xadis la mm-hmm. lu dut ay jëf yoo xam ni dafay dellu ci nature am ci jibillaam amoon na xeetu noo xam ne noonu la ko yàlla binde noonu lay doxe am na nu mu daa waxe am na eh, nu mu daa xoole am na nu mu daa lekke yooye nag duñ ko boole dëgg la dana dugg ci xadiis waaye bokkut ci loo xam ne dañ cey jële al ahkaam al sharciya liñ naan al afaal al jibiliya mooy jëf yoo xam ni jëfi nature la yàlla noonu la ko bindee ku ci nekk am na nooy waxe am na nooy xoole am na nooy nooy doxe am na nooy jëfe ci li nga xam ni doxinu doomu aadama rek la loola bu dul loo bu dul yooya ay jëfam yi nga xam ni dafay delluwaat ci sharia wala dellu wala ay waxam yay dellu ci sharia wala ay taqriraatam yuy dellu ci sharia yooyu yëpp mooy xadis yonent musta toog jataay ne kaay leen ma xadis ma jàngal leen ay xadis déedéet jataay bu nekk la mu fa wax loola mooy xadis ca jataay ba mm-hmm. lu mu fekke la mu fa fekke loola xadis la ca jataay booba fu mu nekk la mu jëf loola xadis la mm-hmm. bu Xusayfa wax ni ànd naa yonent bi sallallahu mu dem ci tookóorub Euh, famille sàngam tookooru euh, euh, famille sàngam waaye mu taxaw fa tuur ndox Xuseyfa moo gis nettali mm. loolu mu nettali xadis la kon xadis yonent bi mooy lépp lu mës a jibe ci moom mm. ci ay waxam mm. ci ay jëfam ca yamu fekke ca yamu bëggoon a def amoon ci yéene te mu jëwu koo def sax xadis la kon loolu mooy xadis yonent bi léegi nag yooya daf ci am yoo xam ni yenn aima yi jàng nañu yenn yi jàngu ya ca des déglu nañu yenn yi dégluwuñu ya ca des la nga déggul nag wala jànguloo ko keneen jàng ko sukkandiku ca la mu jàng àddoo ca àttee ca dugal ko ci fiqam te yow jànguloo loola doxe ci xiyaas yenn saay xiyaas googa dana wuuteeg nas teg si ba nga xam ni kële da koo jàng ci gàttal loola bokk na ci li taxoon aima yi wuute macha allah lay jaajëfal bu baax a baax Euh, day mel ne rek bu ma déggee say wax euh, lislaam nangu na wuute waaye nanguwu tàqali ko day mel ne wuute yi ci déggin lay lay lay sababoo waaye tàqali ko nag moom dañ ko cee tere mu ndax loolu li muy firi mooy ñëpp mën dañuy delluwaat ci rek euh, alquran ak sunna ci ni nga ko waxee alquran day tënk ay waxam waaye yonent bi la sun borom digal na ko nag li ma tënk fii nag firi leeralal ko saxaaba yi benn mu leeral ko ci jëf baa mu leeral ko ci wax ak yam koy leerale yépp lu mu ci mën di doon loola mooy tudd hadisu yonent bi loolu nag ci la mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi nettali tey sukkandiku ci euh, lislaam wuute yooyu ñu ci am moo sababoo ci wuute yi nga xamante ni bii ngir yi am nañ ko ci benn nag mu tegtaloo ci li nga njëkk wax ne ku mel ne Abu fa nga xam ne 80 la juddu ginnaaw gàddaay gi Malik juddu 93 ginnaaw gàddaay gi ñu magante fukki at ak ñett ñooñu day mel ne am na lu ñu fekk ci saxaaba yi waaye ku dut ñoom day mel ne fekki woo saxaaba yi mhm. ki fekke nag wax ne lii moo am ak ki fekkiwul ne lii laa dégg faaw xiyaas wuute am ci seen diggante ñoom ñaar kon yaakaar naa ne tomb boobu eh, foofu la ñuy lay joxe kàddu gi rek ngir nga tëje fi danañ ci gën a ñëwaat gën cee yaatal ci sunu ñeenteelu numéro ak numéro yi di ñëw ndax yaakaar naa ne bëgg na mu leer ci bopp ñi nga xam ne ñu ngi déglu ba képp koo xam ne yaa ngi ci mazhab boo mën a nekk di ca nekk nga nga mën a am ay delluwaay yu leer nañ ba muñ la laajee mën koo indil aw lay kon ma bàyyi la nga tàggatoo. loola mooy doonoon suñu jataayu tey euh, ñu ci doon leeral li nga xam ne mooy wuute bi nga xam ni moo am ci diggante ay may te seeni su doon benn euh, seeni su doon benn comme ni ñu ko waxee léegi rek euh, ñii seeni sëriñ. ndongoy saxaaba yi lañu mm-hmm. te mooy Abu Hanifa ak euh, Malik ñi ci des génération ndongoy saxaaba yi génération ndongoy ndongoy saxaaba yi mm-hmm. ñoom ñooy seeni sëriñ te mooy Ahmad ibnu Hanbal ak imam yi kon ñoom wuute yi ñu wuute lu ci baree bari doonut wuutey tanaaqut du doonut woon wuutey contradiction waaye dafay doon wuutey rek at tanawwu moo ca ëpp mhm. mooy façonal rek ndax sunu borom comme ni mu ko waxee wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj mhm. diine ji amul dara lu ca teeng mhm. amul dara lu ca doonu xat-xat yàlla santaanewul ci diine ji lees munul kon la mu santaane yépp rek manees na ko eh, ca wàll woowa nag moo tax mazahib yi yaatu ba tax na boroom xam-xam yi doon ko wax eh, am na sax ñu ko solo ni hadis la am na sax ñu ne wér na yonent bi naan ixtilaafu ixtilaafu sama xeet yërmande la yërmande la ndax lan ndax dana tax boo xatee bu sa madhab xatee ci yow ci anam gi nga mën a daw làqatu ci beneen madhab mu sa sa loola nga bëgg xat-xat woowa nga nga nga tàbbi woon mazhab booba mën la koo teggil mhm. jàmm dal di sax rek kon loola eh, mooy suñu jataayu tey eh, di leen jox di daje ci ñeenteelu jataay bi incha allah eh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. انزل ما